dafa tooy. Ah. mais dafa tooy noonu laa ko jàppee rek ba ba excité. ah mosoo tooy. mosoo yow mosoo nag bu bi daal di ne dafa tooy rek. tooy rek mais mais monsieur le maire ñu ngi lay nuyu te di la dalalaat bu baax. waaw ñu moom ñu la ko doon wax dañoo xamul lan mooy signification bi ci olof. léegi man dama bëgg a laajte PS lan moo fa xew ndax yow yaa ngi ak Ousmane Tanor ndax li ñu tëj xalifa moo la metti da nga jàpp ni moom loxoom daf ci laqe. wala ndax PS ban problème ngeen am yéen ci seen biir ndax yow ku la xam xam ne PS nga beneen question bi ma ci bëgg a teg mooy. dàq nañ ko. Bart ni nga nekkee nii nii nii <laughs> est metti ci sa diggante sa ak sa papa wala démocratie seen biir kër ngeen ko njëkk a dinaa commencé fu nga daanelee suma papa ci boppam nee naa ko da ngeen da ngeen gëmbal yi. kon sa papa ci ngemb gi la bokk. ñoom ñëpp ci la ñu bokk. ci dëkk ci la ñu bokk. Ah, wante ñoom luñ ci am ci part de responsabilité mooy gunge président Macky Sall wante dëpp carte bi Macky Sall ak Aly Ngouille Ndiaye moo tax mu ne ministre de l'intérieur bii moo ko gën lu nekk xam na lu tax dama ne Aly Ngouille Ndiaye may seetaan mag lu caaxaan te kilifa day wax dëgg. waaw te man citoyen laa lu moo wax c'est d'une extrême gravité su amulee dañ ma yóbbu ci yoon loolu mooy dëgg dans le cas contraire yëpp ay caaxaan la ay livre réponse ça ça s'appelle du saupoudrage ci tubaab saupoudrage mooy jëm a nelawal doomu aadama jëm ko nelawal waaw saupoudrage bu ci tegu nag mooy parti socialiste du ma ci sori parce que parti socialiste euh, euh, d'abord parti socialiste c'est un patrimoine commun damay jël à témoin suñu doyen suñu nijaay Charles Faye nii parti socialiste képp kuy sénégalais dama ne képp kuy sénégalais xanaa peut-être ci gàttal tu ne dois rien que tu es ou né sous le régime nga dem école ci régime socialiste donc parti socialiste ñun nekk am na droit ay kàddu di wax ci parti socialiste kon nag lu mel ni parti socialiste dama leen di delloo rek question bi est-ce que da ngeen foog ne ni yoon la jaadu na parti socialiste dem ba soppeeku nekk mouvement de soutien ndax lan ñaar wala ñetti nit ak seen ay ndombal tànk gis ngeen dëgg rek mooy mujj ñun kenn dàquñu parce que du ngeen mës a gis lettre bu wane ni que dañu dàq diw ak diw ak diw parce que Ousmane Tanor Dieng di suñu kilifa ba tey parce que loolu la yàlla dogal xam na comment fonctionne le parti socialiste dégg naa sax ndeysaan yaram bi dafa xaw a sotante ñu ngi koy ñaanal. Mhm. yàlla may ko wér ak wérle. amiin fekkital ak dal. suñu xarit la. suñu dégg yaram bi dafa sutaate ndax. li muy waaw waaw dégg rek. parce que xam nga àdduna euh, am na lu ko jarul ci àdduna gis na ngay dem ba di yéene nit kaso ku xamul kaso mooy fooy kaso. man Barthélémy Diaz président Ousmane Tanor Dieng du nekk ci benn majorité présidentielle ñu may tëj ci kaso bi te président Ousmane Tanor Dieng àndu si mënul nekk du ma sore ci waxtu nag dama ne xalifa Sall mënul nekk le secrétaire national à la vie politique du parti socialiste ak lépp lu ñuy représenté des parti socialistes ñu koy jàpp ci ay caaxaan ak ay tappale di ko tëj ci kaso bi te Ousmane Tanor du ci ànd te yéen ñëpp dégg ngeen fi Serigne Mansour Sy Djamil waxoon benn réunion bi nga xam ne ni dañ ko ci woowoon ak kaddu yu mu jotoon wax ci réunion boobu beneen réunion bi Ousmane Tanor Dieng ngi toog fekkee réunion bi ba ko Macky ba ñoom Macky ba Macky Sall doon leen expliquer lu mu namoon daan naka ci mbiru Khalifa Sall fii àdduna la nguur jarul yenn yi nguur yàlla ko dul jeex malgré tout ça woowaat na leen kan noonu ñëwaat à la ngeen toog waxtaanee jafe-jafe mhm. parti socialiste peut pour ngeen àndaat nekk benn. non waxtaan man dama bëgg mu leer ci bopp ñëpp tant que Khalifa Sall ngi ci kaso bi. bu ma kenn woo. te dama ne s'il vous plaît c'est le feu maintenant. Euh, Chérif. guerre bu nekk sax des fois moo am jàmm quoi. Chérif doo dem sa waxtaan bi. nee nañ ko ah, Khalifa génn. Chérif waaw ah. mais loolu yomb na. da ngeen di génne Khalifa Sall suba ci kaso bi ñu toog loolu xanaa yomb na. condition boo leen posé la. Khalifa Sall n'est pas en prison par rapport à un délit de justice. Khalifa Sall est en prison par rapport à un abus de pouvoir c'est tout. on va pas refaire le procès et Chérif Chérif man. on même ou on même pas. dama ne képp kuy sénégalais nga yëkkati ay kaddu fii nga ne Khalifa Sall dafa dëpp kees moo tax nga dem kaso dama ne ma nga wax naafeq la wax. ak ko mu doon. mais damay ñëw xam nga tax ma ne. am na fi wax mu fi wax moom si boppam. kan noonu. Khalifa Sall. lu ma fi wax buñ ko wax si wax boobu nga xamante ne moo ko jaral tey mu nekk kaso dafa am wax damaa def ni ñëpp. du man kese dama ne. man kese est loolu tam du boo xamante ne justice si kaw la gëstu. gëstu sukkandiku Khalifa Sall Khalifa Sall téye ko est-ce que Khalifa Sall quand Khalifa Sall def ni ñëpp. waaw mais parce que l'État c'est la continuité. l'État c'est la continuité mooy lan dama leen di jox un exemple dañu ne ci ñun ci suñu ci ñuy liggéey ñun. dañu ne kuy jënd ceeb wala diwlin su passé 30 millions day nekk marché marché lay nekk waaye yow naka nga a toog pendant 25 ans chaque mois mu nekk 30 millions dans l'année c'est 360 mm-hmm. mais le percepteur il sait très bien que c'est un marché. Mm-hmm. préfet de Dakar mooy approuver budget mooy approuver compte administratif compte administratif mooy lan mooy daanaka at bi yëpp su jeexee nga exécuter bi. dañ koy voté pour xool est-ce que lu ma wote woon moom nga exécuté. kon daal ba ba maanaam en matière de détournement des deniers publics y a pas de la loi est rétroactive ou pas. ça veut dire que xalifa su defee dañu noo a jàpp xalifa jàpp Pape Diop dem si yàlla moom bu jëm jàpp a témoigné à la base. non mais s'il vous plaît s'il vous plaît parce que moi je vous laisse poser des questions et je sais que c'est vous qui animez l'émission. mais j'aurais souhaité aussi pouvoir donner mon point de vue. pour ne pas oui, abuser de voilà <laughs> dama ne hmm? dama ne non fast track fast track moom dafa laate sax ñu koy wax sax gëmuñu euh, euh, gëmuñu ko dama ne euh, lu am ba am def nañ lu ñuy def du ñoom balaa ñuy éliminer Khalifa Sall dañ leen wax ne ni que la procédure est terminée ils définitivement connaissent ils vous l'ont dit ou vous l'ont pas dit kon damay laajte vous êtes journaliste ils vous ont dit que la procédure de Khalifa est terminée oui ou non.

ngeen doon wax affaire rabat d'arrêt dama bëggoon ñëw. non s'il vous plaît non non non on revient pas on revient pas au procès Chérif Chérif Eh bien, je vous rappelle que depuis que l'élection présidentielle Chérif ah. Chérif je vous rappelle que depuis que l'élection présidentielle est passée la Cour suprême a décidé de réexaminer le rabat d'arrêt de Khalifa Sall ok ça s'appelle du n'importe quoi loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg alors vous n'en parlez pas mais contre Abdoulaye Wade le premier parti d'opposition dans ce pays c'était la presse loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg aujourd'hui aujourd'hui beaucoup de Sénégalais non man gis man man je dis les choses dama ne ku leen ko wax ku leen ko waxul ci biti lu ñu ñuy wax xanaa presse bi dafa doon mouvement de soutien. waaw man waxuma ko. bon ñi ñoo ko wax non s'il vous plaît vous avez vu des rappeurs qui ont chanté ici. le point de vue. aujourd'hui moi je viens s'il à la TFM à l'aise je vais à la RFM à l'aise yàgg naa fi ñëw je connais les hommes et les femmes. c'est sûr mais je vous dis. Mhm. démb ak dëkk démb fii la ñu TFM di bonde di dóor. xoolal yaa ngi ñu jox na la parole yaa ngi wax. waaw waaw waaw Chérif Chérif ah, s'il vous plaît non je suis on respecte votre travail on respecte votre travail. et c'est la raison pour laquelle on répond à vos invitations. bu ñu féete quand même il faut également ngeen jox ñu cër parce que ñun. à un moment donné des politiques comme vous. mën naa tey am sañ-sañu man nommé ku mel ni Ousmane Sonko suñu ay bakkan ñun dañ ko jël tayle ko ñoom ñoo tayle suñuy bakkan parce que ñu ngi doon toog ci un peu partout naan euh, euh, tel organe dañu far tel organe dañu ba ñun da ngay génn jour élection war a def sa liggéey ay citoyen bu ñu yemoon ci cippatu mu neex pacce yu nekk nga dugg ci donc il faut quand même bu ñu nekkee ci dëkk bu mel ni Sénégal baal ma rek ma ñëw ñun ñëpp ñuy àndandoo di liggéey ñun duñu dara sans yéen vous vous rien sans nous donc bu ñuy ànd di liggéey nañu rafetal diggante yi c'est pas que quand ngeen di wut ngeen di wut ay ay ay vraiment après parfaitement quand vous faites allusion à Youssou Ndour Youssou Ndour c'est Youssou Ndour nous c'est nous on fait notre boulot Youssou Ndour mën nañ toog ay weer duñ ko gis donc de grâce respecte leen suñu métier respecte leen suñu conscience intellectuelle parce que ñun suñu meilleur juge mooy suñu conscience bu ñu tëddee suñu kër man Ndiaye damay nelaw ba yàndoo parce que xam naa ni lu ma war a def ci liggéey bi dama koy def ci ni mu waree bu ma paree ma dem ma tëdd dal Coro dama ne ci ànd moi je suis pas mais coow man fu ma gis dëgg dama dëgg ngi nii. te li ma la wax du dañ dama ne lu ñëpp di wax moo am man du sunu suma mag la man du sunu taxuma wax. il est citoyen sénégalais il a le droit de faire un choix politique loolu mooy dëgg mais dama ne. on était là face à Abdoulaye Wade on a vu le rôle que la presse sénégalaise a joué ce n'est pas le même rôle que la presse sénégalaise est en train de jouer face à toutes ces dérives je ne parle pas du groupe Futurs Médias je parle de la presse j'ai eu l'autre lecture non non j'ai eu l'autre lecture moi j'ai laissé Thioro j'ai laissé Thioro non dafa am loo xamante ne j'ai laissé Thioro développer ce que je voulais dire waaw même rek <laughs> on fait des erreurs terribles dans ce pays Abdou Diouf sénégalais bu mu si doyoo soxluñu kenn dañu dem nekk dañ ko ne jeex na. waaw Abdoulaye Wade Abdou Diouf dem le soir ñu woot Abdoulaye Wade. walaay ndi ko coro saa ko affaire yi jeex na. Mhm. ñu ñëw deux ñu ñëw deux mille douze. Abdoulaye Wade ak ñun fu ak ñun mu jege Sénégalais yëpp Sénégalais yi ne ko affaire jeex na nga foog ne Sénégalais yi. bi ñu doole si Macky Sall nga foog ne da leen di teg problème. c'est pas les, la presse ah c'est les Sénégalais qui décident. Mhm. Sénégalais yi bu ñu décidé woon nii que Macky Sall. làmb ba jeex na. si ngoon Charles wax Charles dinaa la wax lu tax waxtaan bi am solo. Mhm. la presse a un pouvoir que aucun parti politique n'a pas au Sénégal. la presse a le pouvoir d'informer.